Euh, bëri na ci ay dëkk yoo xam ne nit ñi dañu mujj génn jàkkaarloog seen ay nguur. Uh-huh. di wax ni dañuy jàkkaarloog ñoom dañuy xeex ak ñoom parce que li ñu leen bëgg a teg duñ ko nangu. Uh-huh. alors kaawu Sénégal nag dafa nekk kaa boo xam ni benn la boo xam ni dafa xaw doy waar. parce que dafa jaaxal ñëpp. Uh-huh. parce que simplement euh, feebar bi bi mu ñëwee Sénégal première chose bi ñu raté mooy ngéntewuñ ko euh, bu ko defee kon duñ ko xam. xam nga coronavirus Covid 19. Mhm. boo ko waxee terme la boo xam ne dafa am feneen fu mu jógee. Mhm. mais boo ni woon siburu boo ni woon boo ni woon biir buy metti boo ni woon mhm. yaram bu sutante boole et nit ñi gën nañu xamee lool donc dinañ ko gën a jekk ñu tropicaliser ko maanaam ñu tropicaliser ko loolooy indi par exemple diw dafa corona wala kër corona man dem naa fenn di laajte benn benn kër ñu ne ma boo jàddee di nga gis benn boutique boutique bi ci topp kër corona la après kër corona fa la fa la kii gis nga donc ni ñuy stigmatisation bi waaw donc première chose mooy ngénte ko deuxième chose moom mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy nguur gi biñ ko téewee c'est normal mm-hmm. aussi feebar boo xam ne dafa ñëw xamaguñu fu mu jëm nu mu mel nu muy indee ko leeragul ci bopp nit ñi mm-hmm. nguur gi jël ko mm-hmm. mais biñ ko jëlee ni ñu doon communiquer li ñu doon wax yépp dafa saafoanoog nit ñi li ñu gëm ak seen aada ak seen ay cosaan bu njëkk dañ dee wax ne dee leen toog seen kër. Mhm. moom moo indi woon sa état d'urgence boobu. Mhm. couvre-feu dee leen toog seen kër. Mhm. mais nit ñi leen bu ñu toogee suñu kër beneen feebar rey ñu. parce que ñun <laughs> dañuy xëy di wuti lu ñu dund. donc bu ñu toogee suñu kër xiif moo ñuy rey. dañuy am problème. ensuite ñu ni dee leen dàndu wante. bu leen jege wante bu leen saafo wante. or boo dee xool ñun suñu aada ak suñu cosaan loolu la xam. saaf wante dend wante jege wante nit ñi tey garabam mhm. mhm. euh, ne doo ko bandum mhm. kii noo pogum donc foo jël rek loolu ngay gis maanaam que nit ki dafa war a jege mbokk dafa war a jege mbokkam dafa war a bu leen bokk yenn affaire yi par exemple kaasu ataaya bi ngeen di naan rek yu demee noonu or nit ñi dañ lay wax ne la ñun ci la ñu ci lépp la ba léegi sax dañu xaw a tënku ci lool donc mu nekk ñaari logique yoo xam ne dañu xaw a jàkkaarloo li li ñii di wax ak li ñee di dégg bokkul moom moo indi situation boo xam ne ñenn dañ naan la yii amul euh, mënuñu nangu li li ñuy li ñuy teg. munuñu mënuñu mënuñu parce que ñaari ànd. Mhm. situation yooyu nag bu amee il faut que nga xool ay compromis maanaam il faut nga xool pexe boo xam ne au lieu que ñaar ñi jàkkaarloo def nii. Mhm. dangay xool fenn fi ku nekk jéggi benn tànk. Mhm. ñu am fu ñu daje. mais jéggi benn tànk boobu fu nekk am fu ñu daje mooy fan ban yoon ngay jaar pour wax ak nit ñi bu boobaa nekkatul nguur gi. moom mooy taxaw di wax ak nit ñi mais day jaar ci ñoo xam ni bu ñu waxee ñee ñu dégg. Mm-hmm. parce que ci ñun dafa am lu ñuy wax le message mais dafa am lu ñuy wax aussi le message mm-hmm. c'est-à-dire li ngay wax ak ki koy wax. Mm-hmm. Euh, donc foofu par exemple xalif yi. bu ñu waxee nit ñi mën nañ cee tënku. Euh, jëwrin yi bu ñu waxee nit ñi mën nañ cee tënku. labbe yi euh, évêque yi bu ñu waxee nit ñi mën nañ cee tënku. imam bu waxee nit ñi mën nañ cee tënku chef de quartier bu waxee mën nañ cee tënku. Euh, même médecins yi sax bu ñu leen bàyyi jiital leen ñu wax nit ñi mën nañ cee tënku. Mhm. mais bu fekkee ne politique mooy wax. Mhm. moo looloo tax ñu naan bon ñii mënuñoo gëm seen ay affaire ak yu mhm. demee day toll foo xam ne da wut yoon wi nga xam ne fa ngay jaar. ay relais yi nga xam ne fa ngay jaar pour nit ñi mën a dégg. bon heureusement Euh, boo ko dee xool ci dernier temps yi xaw nañu comprendre loolu. dafa mel ni ñu ngi jublu ci loolu. absolument te loolu yàlla mën a def nit ñi gën a dégg. gën a mm-hmm. comprendre gën a am mm-hmm. taxawaay bi nga xam ni. Mm-hmm. mooy taxawaay bi wër bi gën a baax maintenant pour jeunes yi beneen affaire la. parce que xam nga jeunes yi ñoom dañuy boo xoolee dañuy am tendance di football dañuy am tendance dem plage dañuy dem. parce que ñoom mën na leen dal ba pare du feeñ ci ñoom. or ñun ci li ñu gëm ci suñu suñu ay représentation mooy boo feebaree dafa war a moo tax ñuy wax yaram bu sutante dafay feeñ ci sa yaram. or feebar boo xam ne du feeñ sa yaram boo ko waxee nit ki ni ko da ngaa feebar dinaan la non da ngay wax lu la ne donc loolu aussi dafa laaj liggéey. Mhm. pour nit mhm. ñi comprendre lu mu doon. feebar bi dafa am phase d'incubation. Mhm. loolu aussi dafa laaj liggéey pour nit ñi comprendre ko maanaam mën na la dal. nga toog ba 14 jours muy soog a feeñ. mooy loolu la ñuy wax phase d' incubation maanaam jours yi nga xam ne mi ngi ci yow. mais mhm. feeñul mhm. am na mhm. feebar yoo xam ni seen phase d' incubation ëpp na loolu. mais nit ñi xamuñu phase d' incubation feebar ba ba mu tàmbalee rek la ñuy jàpp ni boobu la leen dal. même si buru yoo bi bu la màttee. anophèle boobu bis bu la màttee bu la di di toog diir muy soog a feeñ. feebar bi di soog a feeñ ci sa yaram. léegi nag loolu nit ñi xamuñu ko phase d' incubation boobu bu ko defee dafa bëri yoo xam ni dañ koo war a leeral nit ñi ci wolof. ci alpulaar ci séeréer ci ci ci ci ci joolaa et cetera. Mhm. pour nit ñi comprendre loolu lu mu doon tour de positivité. dañ koy mhm. wax bis bu nekk. Mhm. est que mës nañ la wax ci wolof lan lay bu baax y a un problème or taux de positivité am na solo. waaw bu ñu nee par exemple bu fekkee ni dama teste cent personnes euh, daal di am dix cas mais. da nga naan li li ma li ma am bëriwul mm-hmm. mais boo testé mille personnes nga rapporté ko ci même échelle bi da ngay am cent cas mm-hmm. Mm-hmm. donc loolu taux de positivité boobu dañ ko war expliqué nit ñi ci wolof mais dañ dinañ ko wax ci français mais duñ ko wax ci wolof waaw ki kiy joxe information yi chaque ci du ci boole taux de positivité alors loolu tamit dafa nekk ay jafe-jafe mooy mooy mooy nattukaay bi mooy nattukaay bi ah, sànq yaa ngi doon wax lu lu am solo bu fekkee dañoo dem ba